Macky Sall maanaam avertir nañ ko ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature yéene kaay gi nee na le F24 gagne le pari de la mobilisation noonu la ko journal bi di Sud Quotidien xëy fësale si xët mu njëkk ndax nee na bi nga xam ne gis nañu ko niki démb ci place de l'Obélisque maanaam nit ñi wuy si nañ bu baax a baax journal bi nee na ñi nga xam ne ñuy waa F24 li tax seen ma ak la nga xam ne ñaxtu nañu ko fa ak la nga xam ne nee na ñu bëgg ñu mu am ci réew mi mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ndax ñoom nee nañu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature loole mën na andi ak salfaañoo ci

Sall ci tas ko du xabaar yi loole la ñu bëgg mu dakk nee na ñu ko Macky Sall jàpp gi nga xam ne ma ngi mel ni tuleeg male ci activiste yi loole la bëgg mu daal dakk Déthié Fall ci biir journal bi daan nay wax ne Macky Sall jamono ji jeexal na na daal waajal li nga xam ne mooy ab départ am Mali ci biir journal bi daan nay wax ne bépp ndaje boo xam ne dañu koy taxawale ngir nag di fa faagaagal Ousmane Sonko du ca bokk maanaam ci dialogue bi la Mali Gakou doon wax journal bi di Walf Fadjri ko loole nag ab signal la boo xam ne bu fort la boo xam ne Sall journal bi nam ko tuddee mooy F24 lance un signal fort à Macky Sall yéen kaay gi nee na yi ni ki démb mel na ni tulleeg màlle am na pancarte yoo xam ne Macky dégage lañ ci bind am na ci pancarte yoo xam ne non au troisième mandat lañ ci am na ci pancarte yoo xam ne Macky dictateur lañ ca bind am na ci pancarte yoo xam ne Macky traître lañ ca bind am na ci pancarte yoo xam ne libérer les détenus politiques lañ ca bind yéen kaay gi di vox populi mu njëkk ne une forte mobilisation procureur Aliou Ndao démb rassemblement bi nga xam ne F24 doon nañu ko amal daan lu jëm ci bi nag nee na mbiri procès Adji Sarr moo ko waral waaye nag moom ancien procureur bi daan nay wax ne na ko farandooy Ousmane Sonko daal di taxaw temm ko journal bii di laas nee na kenn ci nitu Ousmane Sonko yi libéré nañu ko di ko naka bi tudde mobilisation double XL annuelle du F24 yéene kaay gi nee na une véritable marée humaine noonu la ko laas yéene kaay fësale journal bii di enquête nee na rassemblement F24 succès populaire journal bi nee na succès am na ni ki démb ci rassemblement bi nga xam na waa F24 woote nañu ko ndax fu nekk fa nit bàbbee ñëw ci place de l'Obélisque yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñuy waa F24 ni ki démb wane nañu seen force de frappe maanaam wane na ñi nga xam ne ñuy jëm ci wàllum xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall journal bii di la point xëy dañuy xibaar naan ñu f ni ki démb daje nañu ca place de l'Obélisque waaye nag xew yuxaloo nañu fa Khalifa Ababacar Sall yuxaloo yoo xam ne mara day tali ndax Khalifa Ababacar Sall ba mu demee bay jël kàddu la ko militant Ousmane Sonko yuxaloo yenn xeetu loo yoo xam ne mara day tali journal bi nee na lu ñu ko waxul dañu ko fàtte traité nañ ko de tous les noms d'oiseaux journal bii de la point mooy xëy di wax nee na nag dafay firndeel ne jamono ji maanaam réeroo am na ci biir coalition Yewwi Askan wi te nag soo moytuwulee ëllëgu coalition Askan Wi du jur jàmm yéene kaay gi du l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu du Khalifa Ababacar Sall rek la ñu yuxaloo ni ki démb ndax Khalifa Ababacar Sall di Pape Djibril Fall dañu leen a dañu leen toroxal ni ki ba ñu ne tortu ca place de l'Obélisque yéene kaay gi di Sud Quotidien Khalifa Ababacar Sall ak Pape Djibril Fall dañu leen a yuxaloo démb yéene gi di Sud Quotidien nee na rassemblement bi bi nga nag jàppante yi nga xam ne moo am ci nitu ñi nga xam ne ñooy waa taxawu Ndakaaru ak Ousmane Sonko yi ñooñee ñoo yàq xew wi Khalifa Ababacar Sall nee na yuuxaloo yi nga xam ne moom lañ mooy yuuxaloo loolee yëngalu ma te nag yuuxaloo yi maanaam du moo fii jële Macky Sall yéene kaay gi nee na Ousmane Sonko Barthélémy Dias maanaam teewuñu ni ki démb ca ndaje ma journal bi nee na ñi farak Ousmane Sonko ak ñi farak Barthélémy Dias jàppante nañu fa ni ki démb ba seen xol yéene kaay gi nee na Ousmane Sonko ni ki démb ñëwul ca ndaje ma waaye nag Ousmane Sonko ñëwul waaye mel na ne luy ñëw ndax Sonko Sonko ji mel ni na tulleeg màlle mën a la gis nga foo xool dégg fa Sonko Sonko Sonko Sonko yéen kaay gii di la sa xëy duñu xibaar na ñu Ousmane Sonko ñëwu la Barthélémy Dias ñëwu la Aminata Touré ñëwu la les grands absents journal bii di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu jamono ji nga xam ne F24 ñoo ngi dajaloo ngir nag ñu bàyyi ñi nga xam ne jàpp ñu leen te wàllum politique taxa maanaam démb am na ku ñu jël yóbbu ko sa kasu ba di Oustaz Assane Seck mandat nañu ko dépôt yéen kaay gi nag nee na Oustaz Assane Seck moom li tax ñu teg ko loxo at dina ko gagné waaye nag bu ñu ko teree mu bokk ci élection yi Sénégal mën naa dugg ci kawo yéen a kaay gii di leen foo Moussa Dina ni ki démb daan nay wax ne opposition bi dañoo war a joxante loxo dañoo war a nekk benn maanaam benn adversaire rek la ñu ama maanaam muy Macky Sall yéen a kaay gii di la sa ñu fekk fa Marème Soda Ndiaye mi fi nekkoon député ay jamono daan nay wax ne ñi nga xam ne ñooy dem fas yéene dialogue ak Macky Sall na leen leer na Macky Sall du démocrate docteur Abdourahmane Diouf nee na dialogue bii dil lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ay dëmboo ca daan nay wax ne Macky Sall jamono